nataal fukk ak ñett na ci dëkk bu ndaw bu ñuy woowe betleyem guddi na woon maryaama ak yusufa dëkkuñu woon ci dëkk boobu te ñu ngi doon wut fu ñu dal waaye ñu mujje dal ci fi jur yi di lekke te foofu la maryaama jure yéesu doomu yàlla mu ëmbe ko ay laytaay teg ko ci lekkukaayu jur guddi gi yeesu juddu amoon na ay sàmmkat yu doon wottu seeni jur ci àll bi ci lu gaaw ñu gis leeraay bu màgg ba am ragal kenn ku yàlla yónni muy malaaka ñëw feeñu leen ne leen bu leen am lu ngeen di tiit ndax xibaar bu baax laa leen indil te mbég bu rëy lay doon ci askan wi yépp tey ji musalkat juddul na leen muy kirist musalkat bi ci lu gaaw malaaka yu bari wàcc di fecc toy màggal yàlla bi malaaka delloo asamaan sàmmkat yi waxante ci seen biir nañ leen dem ba betleyem ba xam li fa xew ñu gaawantoo dem ba gis maryaama ak yusufa ak liir bi ñu tëddal ko ci lekkukaayu jur gi ba noppi sàmmkat yi ñibbi seeni kër ñuy màggal yàlla ndax lépp li ñu déggoon te gis ko ndax lépp amewoon na ni leen ko malaaka yi waxe woon